hello sama gars yi hello tout le monde Malick Ndoye le jeune Thiof jàpp tey alors aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter wala d'inviter ki nga xamante ne temps yi gëjoon nañ ko gis ci game bi il s'agit de Vito Buzz Lab et c'est un honneur c'est un plaisir ma dalal ko fii nii Vito maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee. delloo ziar Malick Ndoye salaamaaleykum. pourquoi Eclipse. <laughs> mais daal Fall da nga jékki-jékki rek ñëw génneel ñu Eclipse lan la da naaw da ngay seey wala nu fa demee noonu. non naaw ma seeyu ma. mais damay cag-cag gars yi. luy cag-cag. voilà donc Eclipse cag-cag la quoi. damay livré. dafa dafa am benn affaire bu nekkoon si man su ma ko livré wul woon rek du ma féex ko fallait que ma livré ko fale que ma génnee ko si man ko tu vois que ma génnee ko sama bopp génnee ko sama xol après ma bën ma gën a ma ma mën a nice quoi. génnee ko sa xol ça fait un an gën nañ la gis génne woon nga sa projet. focus def si ay et tout nga ñëwaat un an génne Eclipse mais lan nga dund si diggante bi ba ñëw ñaf ko si biir Eclipse. <laughs> mooy li gars yi dégg rek mooy li yi dégg rek donc amul euh, je pense que amul benn affaire boo xamante ne ni dañ ko nëbb wala lu ñu lu ñu waxee neneen wala lu ñu junj. tu vois lépp lu nekk si projet bi du début à la fin dëgg la. ça a été dur de travailler ci li nga xamante ne mooy Eclipse. Hmm, non non non non non je pas. non non non même pas parce que Eclipse projet bi en fait ni mu ni mu doon ñëwee si man noonu laa ko doon biddee en fait daf ci période la ci période de un an laa ko joobee parce que genre je te mun naa job cinq sons si cinq jours mais c'est-à-dire que j'ai pris le temps ci période boobu et que mënuma woon def leneen lu dul rap munu moo def leneen lu dul génnee sama génne li nekk ci sama xol génne li nekk vidéo ko tu vois. sa xol nga def ci Eclipse. je dirais pas sama xol à cent pour cent mais li ma gën a li ma gën a métti ak li ma gën a dund ci un yi. lu la métti. comme ñëpp. dund lan moo la si métti parce que premier dina ñëw ci cover bi dina ñëw si cover bi mais yàlla son dund y a des paroles yoo xamante ne wax nga ko te dafa xaw a résumé li nga xamante ne mooy projet bi lan nga ñu mën a wax ci son bi nga xamante ne mooy dund. Euh, te mooy son boo xamante ne nii moo résumé projet bi yëpp tu vois dund moo résumé projet Eclipse bi yëpp du début à la fin amul refrain parce que bëgguma woon sax def refrain ci son bi tellement que je voulais je voulais m'exprimer de telle sorte que bëgguma woon refrain am ci biir dama buggoon tàllal son bi yëpp et que dund je te dis ah dund dañ ko dagg. su waxoon yëpp quoi. son bi dañ ko dagg quoi parce que am na affaire yoo xamante ne nii. ëppoon na génn quoi. <laughs> yaa ngi siy wax ay son bi ñàkk ak deret laa ko bindee. non boobu boobu ah boobu beneen ci éclipse. Euh, éclipse la quoi tu vois dund dund moo commencé xamal sa bopp te bul jéem a xam keneen lu mu doon ku dawul bi say bëccëg lëndëm fekkee leeraayu ngoor. ku dawul bi say bëccëg fekkee leeraayu ngoor maanaam képp ku dawul say bëccëg buy lëndëm boo daw bu ngoon leeree di ko fekk. commencé baar boobu. Euh, genre maanaam comme li may à chaque fois rek dundu dundu dundu naa ay guddi yu dundu naa ay bëccëg yu lëndëm ak ay guddi yu leer est-ce comprendre mooy que cool na fu mu warul woon coolee te nor naayis na foo xamante ne ni musuma xalaat ne dina fa naayisee est-ce que comprendre nga. yee loolu la surprise de la vie. voilà donc. projet bi c' est c' est c' est typiquement typiquement typiquement li ma dund si un an un, une dernière. pourquoi Eclipse. Yeah, Eclipse mooy ci ci ci dans la vraie vie mooy bu weer bi ak jant bi dajee voilà donc loolu mooy tax dëkk bi xaaw a lëndëm lëndëmul ba jàkka yi di ñaan pour weer bi jant bi bàyyi weer bi genre affaire yu mel noonu euh, ça arrive souvent nag dafay am très rarement sax du moins des fois par mu ngeen mun nañ toog ay années duñ ko gis des fois mu am et que man j'ai utilisé Eclipse comme si que dama nekkoon ci période bu lëndëm di jóge si pé di jóge si période bu lëndëm di ñëw si bul ci ci ci leeraay bi quoi tu moo boobu moo tax boo xoolee ci cover bi leer bi moo moo domine lëndëm bi quoi est-ce comprendre nga ko cela veut dire que am na fu mu jóge te te maa ngi fay maa ngi siy génn naa comment ça yaa ngi siy génn comment boo xoolee xoolee sa position si game bi xaw nga am benn recul som wala yow tu parles de game kese euh, tu parles de de de ta vie en fait je parle d'une manière générale je parle de de ma vie je parle du rap je parle de tout en fait je parle de mes proches euh, de mon travail à part la musique donc lépp laa si wax quoi tu vois. ta famille. de ma famille tu vois de donc j'ai parlé de tout tout tout tout, tout si biir projet bi quoi. Eclipse am na benn son bu tudd Eclipse. Buzz Lab du ma famille la may booy. kon du dërëm ak passion moo tax ma toog fii di wëy. Malick Ndoye <laughs> genre il faut ñu xam benn affaire si man du ma demee demi mesure si dara si dara si àdduna du ma dugal bopp joxe ci làmmiñ ah on man du ma dugal bopp ci làmmiñ quoi tu vois Buzz la genre musique moo ma fa indi woon mais ñëw rap moom ma fa indi woon je connaissais personne là-bas en tant comme comme ni ma leen xamee nii quoi tu vois dama leen doon dégg rek mais après bon ak année yi ma fa def y a relation relations y a yu yu purement purement humaine yi nga xamante ne nii ñëw na ñëw na existé na sunu diggante quoi tu vois à un certain moment donné dem naa ba genre les membres du studio xoolatuma leen comme kii ñoo bokk label et autres quoi dama koy xool comme dama lay jàppee comme sama frère quoi tu vois parce que bu bu bu méttee dama lay gis bu neexee si man dama lay gis quoi. kon yow bi ngay ñëw euh, passion ak dërëm moo taxoon nga topp leen. Eh, bi may ñëw topp ma leen de. moo taxoon nga ñëw en fait waaw. <laughs> bi may ñëw <laughs> bi may ñëw studio euh, musique moom fi indi te musique sama passion la et que am na leneen aussi loo xamante ne nii mooy côté xaalis bi est-ce que comprendre nga mooy passion ak dërëm moo lay moo ma moo ma dugaloon ci ci studio bi tu vois ak doxal sama musique genre d'une manière générale quoi mooy musique bi ak ak ak tout ce qui va avec quoi tu vois mais après genre affaire yi dafa dem ba. mujjee nekk famille quoi comme li nga expliqué léegi. loolu noonu yëpp tu vois. c'est réellement une famille. est-ce que yow réellement tu les considères comme benn membre famille boo xamante ne yéen famille nga quoi. c'est la famille man personnellement li nekk ci sama xol c'est la famille avec les membres qui sont là-bas ak ñi ma ko dundal quoi. ak ñi ma ko dundal. nga nga leeralal foofu rek parce que euh, yombul nga gis artiste boo xamante ne mu ngi ci studio après <clears throat> voilà quoi muy considéré gars yi comme une membre de la de de la famille en fait. na jéggi na foofu jéggi na am na deuxième baar boo wax ba tey si Eclipse Gelawaar dem na te te dootul ñëw mais full beat la fi jóg Gelawaar c'est un beatmaker mais malheureusement dafa décédé ñu ngi ñaan yàlla yërëm ko te xaaral ko àjjana lan ngay wax si loolu. genre comme àdduna nii Malick Ndoye amul kenn ku pare quoi kenn mënul pare képp ku génn àdduna am na loo doon waajal suba ak ginnaaw suba ak dans l'avenir moo tax loolu moo indi full beat la fi jóg full beat la fi jóg voilà il a fait beaucoup beaucoup beaucoup d'instruments il a de beats yu war a nekk ci ay projet à venir tey sunu borom bi dogalul mu mu mu fekkee bu fekkee loolu ko tu vois et que je te dis il savait que damay génne projet bu war tudd Eclipse mais genre Eclipse fekk ko fi déjà waroon na si am bit parce que boo xoolee depuis après tasaare projet yi ma def yëpp action yi ma def yëpp boo xoolee man da si participer quoi je vois côté vidéo donc li may mën a wax rek mooy que yàlla yërëm ko xaare ko te deem na la la la la def. genre bilaay walaay bëgguma si wax sax mais genre xam naa ne que yàlla mooy dogal quoi mais c'est des c'est une chose boo xam ne j'arrive pas à accepter saa ba tey quoi. pas accepté dessin am. waaw ba tey genre je me dis que su ma ñibbee nii studio dama ko fay fekk quoi jusqu'à présent quoi parce que tellement que affaire bi ni mu ñëwee la ko tu ni mu ñëwee la parce que à je pense que à à une heure ou une heure ou deux heures de temps avant avant décédé avant muy décédé déggante ne. mu wax la lan. genre. booy eh, boy naka mu naay si ay cool boy yaa tane woy maa ngi tane woy naka la boy yaayam ngi am ma ne ko ma ne ko taay maa lay cool xam nga mënu ma la jot affaire yooyu mu ne ma woy sama téléphone bi mooy loolu quoi ñi sax maa ngi faan aye mu ne ma ma ne ko waa d'accord instant yi nii dama jël pause mais coow su ma wàccee dinaa la kóol pour mën la seet si faan comprendre nga après bi ma wàccee ma ne bàyyil ma kool ko ma ne non bàyyi ma dem studio puisque mag piis ñoo ko doon kool jotuñu ko te man jot naa ko tey bàyyi ma dem studio su ma yeggee studio ma kóol mag piis après ñu xool na nañuy def ba seeti ko quoi tu vois bi may yegg si di dugg ci biir cité bi ah euh, lañ ma kool nee ma bàyyi loolu jotuma ko kóol sax et ci yoon bi yëpp bi may jógee ci yoon bi yëpp maa ngi doon naan bàyyi ma kóol ko ma naan non non bàyyi ma yegg ba studio quoi su ma yeggee studio naa ko kóol avant maa yegg studio ñu kóol ma la fa demee mais sant yàlla quoi sant santee ko yàlla rek waaw loolu tamit beneen baar la boo xamante ne wax na ko ci li nga xamante ne mooy son deuxième son bi Eclipse. mais ba tey dañuy des ci ci ci buzz ba tey nee nga famille la wax nañ ci gelwaar tey studio bi ñu bëri nekkoon nañ fa dem na fa comment va le studio. Malick Ndoye studio bi weet na mais liggéey du fi jóg même bu fi desoon disque dur kese wi never daa ndax dëgg mooy génn ci sunu dënn wi never laa Malick dëgg du dee dëgg dëgg du dee. mel ni zoo laay waxtaan. non non non non même pas sax parce que projet bi en fait c'est c'est un peu c'est pas spirituel laa ko war a mën a wax wala genre mais Malick dëgg du dee quoi tu vois dëgg. mooy studio va bien. très bien d' accord on avance ba tey ci li nga xamante ne mooy son boobu parce que wax nga ci ramit ay déception comment tu gères les déceptions venant des gens bon en général ci déception yi nga wax ci son yëpp euh, baar yi nga wax yëpp ci ci sa projet déception yi nga xamante ne jot nga ko am durant ces un an parce que moom nga dajale ci son bi. gisatul sa kóol rek. aw ñàkk crédit mais maa ko tay quoi en waaw woowatuma la quoi maa tay xam déception yooyu yëpp nga am muy si xarit ak je sais pas ak famille ak nan la nan nga koy gérer. dama am sama sama sama benn gain je le salue de passage bu tudd Jean quoi moom waaye defal yàlla la may waaye defal yàlla parce que genre du du loo xamante ne ni dama ko maa doon du loo xamante ne ni dama ko dama ko tey walla dama koy def pour ngistal wala dama koy def pour du si xaar dara quoi. mais j'aime aider les gens j'aime fekk nit ku toog nekk ci ay projet am ma bàyyi sama projet ma poursuivre ay affaire am c'est naturel je pense que boobu ci sama yaay laa ko jëlee lu leer laa lay wax je t'explique benn anecdote bu ndaw par rapport ak ça sama yaay dafa yor kilo ceeb war ko toogu si kër gi nit ñëw jooytu ko mu jox ko ceeb ñu toog bañ lekk def na ko ay yoon yoon sama kanam tu vois sama yaay genre nit boobu la quoi je pense que côté boobu ci ci moom laa ko jëlee et que déception yooyu noonu yëpp ngay gis Marie Ndoye ça existe bien et que boo xoolee depuis depuis sama premier projet ba tey je parle beaucoup de déception je parle beaucoup beaucoup beaucoup de ça parce genre dama bëri doo bàyyi. baax bi munu ko su ma ko mënoon def damay bon bon mais du bon. déggoo expression boobu trop bon trop con dañ lay ah pense pas que genre trop bon trop con d'accord ok mais euh, xaw mais genre affaire boo xamante ne nii la ça me domine tu as message à lancer. à ces gens là yi nga xamante ne ñu ngi lay def tout le temps yu ak ñoo xam ne ñu ngi koy waajal. tout leen di waaw su bon mooy da nga leen da nga leen di que parce que su ma wax du question que dañ may def lu bon la reconnaissance en message à ces gens genre c'est la reconnaissance booy nit ki bu la defaralee bu bu nekkee ci naaj bi nekkal la ci naaj bi nekkal la ci naaj bi bu ko bu ko bu fay ko ker quoi Malick Ndoye man su may def pour nit dama koy damay def te yàlla tax quoi damay def quoi dama si demee à fond. bu ma leeree liggéey muy si lépp. muy si liggéey muy si lépp bu ma leeree ne je peux pas te dis carrément je peux pas je suis du genre boo xamante ne nii je triche pas su ma munu dama naan mënul su ma ko mënee def dama naan mën naa ko def te dama koy def ba ba mu jeex tàkk des fois mën naa ko ñëw fekk ko sa loxo fokkati ko defaral la ko ba mu nice dellowaat la. sa relation ak Abdou Bass lu tax ñu génn foofu na mooy chapitre Beaux-Arts ñu tëjee foofu Canabasse qu'est-ce qu'il représente pour toi sama frère la lan la def si yow lu bëri en tout cas je vous nit ku ma fonk la ci àdduna man perso moom nit fonk la ci àdduna moom waaw dama ko fonk ko am ma ko fonk et que la vérité am na loo xamante ne ni du ma ko nëbbal kenn ci àdduna te duma ko bañal kenn dëgg la ñu jàpp ci sama carrière depuis lors depuis sama début am na nekkoon naa ci ay groupe nekkoon naa ci ay affaires yu bëri tu vois bu ma yegsee fii ba toog ba Malick ba ba Malick Ndoye ñëw di ma interview ah c'est grâce à Canabas parce am na ñu bëri ñu ma dégg ñu déglu sama son gis ma validé wuñ ma du question validé wuñ ma parce que parce que Canabasse moo ma validé en fait voilà Canabasse moo ma validé nice beneen sound mine leen ma boole seeni mbir foog seen ten foog seen top bi may jàng naaw boobu maa ngi boobu yaa ngi jàng dox wàccee sama bopp ndax mënul tax ba ma tax ba duma leen tiim rab bu ma bu ma bu ma lan lan laa waxati sax bu leen ma boole ci seeni i mbir foog seen i top ten bi may jàng naaw ci gémmi mi yéen a ngi jàng dox wàcce sam bopp mënul tax ba duma leen tiim soxlawul may farak diw ak diw pour mën a niin <laughs> maanaam bokkuma ci ay loo xaritoowuma ak diw pour mën a jàpp ci kawam est-ce que comprendre nga pour mën a yéeg jàpp pour échelle quoi tu vois comprendre nga et lii ñu nekk di def nii yëpp marindoy dama lay wax quoi man Vito maa toog di wax rap Galsen koñ ba koñ soit da génne benn clip mu toj daay xam la wala nga benn son mu toj gaay xam la amul si sama génération kenn ku ci génne projet ñu xam la génnewuma clip pour def si ay lu bëri wala investir si wala def si ay affaire projet laa def douze titre mu tasaare àdduna ci loolu lañ ma xamee quoi. projet bi tasaare la. pour na gars yi nañ nañ dal est dal loolu mooy booy dal leen. merci beaucoup merci si question bi. baar dégg ngeen ah. mbir weesuwul ngeen may tëkkaaleeg is. tu parles de Is 14 wala de man gisuma fenn fu ñu la kàddu ak Is Is la la la def clash la nu demee noonu. je parle de Is ah. je parle de Is mais euh, ça c'est du baar du clash du baar ah euh, comme comme te dis man à chaque fois damay euh, damay xool ci li nekk ci sama àdduna ak li may gis ak liñ may wax. public bi public bi la mais aussi public bi dañoo am impact ci ñun lu ñuy bind comprendre nga euh, j'ai l'habitude de voir ci ci euh, ci ci sama commentaire Instagram YouTube ci si réseaux sociaux yi j'ai l'habitude de voir il a la le même flow que Is tu ah, vois okay. il même flow que Is tu vois ci ci même YouTube ah tu à chaque fois moo tax ma naan gars yi yéen a ngi réeree mbir quoi du Is de du iis kii tegul si kenn si boppam la teg. loolu nga wax quoi. du iis man la Vito la quoi tu man teguma si kenn iis moom day teg si keneen quoi xam nga teg naa si yow bi lay indi quoi tu vois. man da ngeen am rapport ngeen xamante wala. on n'a pas de rapport xamante wuñu genre en plus euh, c'est pas les trucs qu'ils disent qu'il qu'il à Buzz Lab là ça pas. donc euh, li ma ko si wax wax naa ko game la nañ koy gémee foofu rek muy nice. parce que gis nañ ko gis nañ ko si net bi et nga am ay échange yoo def si moom affaire yooyu noonu. waaw parce que tëb bu ma tëb rek def ay échange si moom moom moo def ay échange si ñun donc bu defee ay échange si ñun yoon la ma tontu parce que ñun la waxal quoi. est-ce que comprendre nga. foofu rek benn parenté yow en tant que relève bu Buzz Lab sànq objectif bi ma lay laaj sax loolu la relève bu Buzz Lab la parce que amoon na ñu fi nekkoon tey yow yaa fi nekk bon ñeneen ñi ñu ngi fa ba tey base mu ngi fa mais il n'est pas trop trop présent tey c'est toi le futur yow yaa Pispa aussi lan mooy say objectif si côté boobu. Malick Ndoye Malick samay objectif du ma ko si si la Lab laa wax. yooyu Akbess for real ah Akbess moom Akbess nit la ko bilaay walaay nitu kese la comprendre pour man. Euh, affaire bi comme moom ni mu koy waxee rek game la quoi tu vois devant les peut-être da ngay sol sa yére artiste xam nga parce que loolu moo am quoi du question de dëgguwul si man wala ñàkk dëgguwul si man a genre affaire bi demee noonu mais loolu la laaj te lu mu laaj dañ ko koy jox quoi mais humainement parlant je te dis Alboury nit gënu ko quoi nit ku mool la en plus sama kolook la woon ñoo xawoon ñoo takkaloo woon appartement tu vois et que tout le temps dañ doon daje tu vois et que ñoo bokk li ñuy def ñoo bokk ñoo nekkandoo ci game bi et bu waree nice dafay nice quoi du question de dañuy daje di dóorante weesu nañ loolu tu bu ñuy saf buy saf na saf ci bi est nga te yaakaar naa ne amul benn genre wax na ay waxu buzz la ci net bi genre affaire yu demee noonu mais amul benn affaire boo xamante ne nii. c'est visé de un se dise la vérité amul benn affaire boo xaman ne saaga nday la comme ni ma lay expliquer parce que y a des yoo xamante ne nii bu génnee ci game bi lay yem quoi mais am na loo xamante ne nii on peut prendre ça personnellement moom la ñuy wax entre entre bif ak clash voilà est-ce que comprendre nga du benn. donc ñaawul woon quoi amul ay mots cru yoo xamante ne dafa disrespect à 100 pour cent. te après bon. peut-être que loolu côté rab bi la mais nit ki boo ko xamee dëggintaan jaay ak bés boo ko xamee dëggintaan jaay di nga xam ne que booy ak bés booy borom baax la booy. cool niga la booy ak bés real niga la cool niga la. Euh, moom genre bi may expliquer comme comme euh, léegi mu mat at léegi mu mat at gëj naa génnee li ne ci sam bopp genre affaire yu demee noonu quoi je me rappelle plus des de des paroles mais j'ai dit que léegi mu mat at. Euh, gën naa janoog mic bi pour génnee li nekk ci sam bopp tëdd ci canapé yi xam nga xalaat ba xam jóg yoraat sam doq xam nga dem gaale toog bi xaw ma lan x time ronga ñi di taw xaw ma lan fanaan comme juste je veux expliquer j'ai fait presque un an Pispa mën na seede li ma ne presque un an yoo xamante ne nii quand je vais studio du ma sax dugg ci biir studio <laughs> am na benn canapé bu nekkal foofu damay ñëw rek wéeru si canapé bi naaw yeew dem ñibbi su ma ñibbee sama gaale du ma mën nelaw damay xoole ba fajar yeewu jóg gérer samay doom ñu dem école ma joobi su ma ñëwaatee studio pour sound nelaw yi ma waroon nelaw déebu si guddi su ma ñëwee yooruwaat si canapé bi nelaw ko fa delluwaat gaale du ma mën nelaw parce que y trop sama bopp dafa feesoon del j'avais trop trop trop dans la tête et dans le cœur that's why ma indi projet Eclipse fallait que affaire boobu noonu yëpp fallait que mu génn pour nekk projet bii. nekk rapport du job quoi. dafa neex nga naan métier dafa neex loolu laa dafa neex parce que àdduna xam nga lan mooy réussite Malick Ndoye sa jour anniversaire sa doom envoyé message vocal papa joyeux anniversaire. ñëpp a ngi en bonne santé. si a ngi en parce que am na bàyyi naa les bras depuis ma dégg papa. bàyyi naa bàyyi naa baisser les bras depuis bi ma déggee papa papa achète-moi ça maa ngi benn affaire moom mooy que gis nga bi ma demee ba am doom si ngay xam ne. je dirais pas maanaam mais ñëpp boo demee ba am doom ci sa àdduna si ngay xam ne sa baay du sa morom parce que xam nga lu tax danga si yenn benn wala ñaar àdduna bi di la sifaay sa papa amoon si yu bëri te kenn mësul dégg baatam fen Malick Ndoye j'ai j'ai deux deux enfants maa ngi koy dund nice maa ngi sant yàlla mu ngi cool ma koy gérer barki démb dama doon wax sama sœur bi que j'ai fait j'ai fait j'ai 38 ans <coughs> waaw 31 ans sama gaale one est huit musuma toog ci àdduna ba nit fëgg kër gi ne sama papa fay ma bor wala sa pap il nous a géré ñun ñëpp am na sama benn son xaw ma nag génn na wala génnul quoi ma maay naan xaw ma je sais pas am na nu ma ko waxee benn référence la am sama aaduna mu sam pap si kooku kese laa mën roy pour mën a génn man ci sama laay tey soo amoon benn message pour te fii parce que interview lan lay nekk devant la caméra. pour euh, <clears throat> donc fi may commencer mooy àdduna boo ci nekkee balaa dara di xew dangay fonk say waajur balaa dara di xew ak nu say waajur mel munoo leen jur. boo fonkee say waajur lépp loo mën lépp loo bëgg ci àdduna suba ba ngoon mën nga ko am boobay benn ñaar nit da am ngëm-ngëm da gëm yàlla gëm sa bopp gëm-gëm boo gëmul sa bopp ku lay gëm foog gëm sa bopp ba pare nit ñi door la gëm ñetteel bi mooy nit góor yàlla dëgg dangay mun a mun a muñ. jigéen <laughs> parce que ay su ma nee góor yàlla man góor laa quoi moo tax ma naan góor yàlla dama ko taamu quoi góor yàlla dëgg mais nit dëgg da ngay mun a mun a muñ. keese quoi. da mën a mun a muñ parce que àdduna lépp misaal la rek te lu metti yàggul. lépp dafay jeex da mën a mën a muñ dëkku soo dëkkoo rek mën nga muñ li ngay jam si jamono ji mooy li ngay gis si jamono ji wuyu na turam quoi li ngay gis li ngay dégg liy xew si dëkk bi li ngay dégg si média yi li lay metti bi li lay voilà li ngay seetlu li ngay gestu di ko gis di yéeg oto di ko gis di di di dem fu ne di ko gis donc projet bi mu ngi noonu est-ce que mën nañ xaar beneen projet xamante ne dinañ ñëwaat bi wala bii dafay ànd ak ay concert parce que gis nañ say affaire yi en tout cas projet baa ngi noonu génn na na ko gars yi dem xool concert yi ñu ngi ñëw léegi nag li ma mën wax gars yi mooy que diggante projet bi ak concert yi am na surprise buy xew ci diggante bi mais du ma ko wax kenn ko gars xaar affaire bi tournée la it de Side Tour la tudd comme genre Hit The Club Hit The Club Tour bi laa indiwaat donc avec un peu de de de changement de de genre affaire quoi pour juste rester dans moi et rester dans le studio quoi moo indi Hit de Side Tour bi et que le 20 décembre ñu ngi Mbour euh, le Balafon le 27 décembre ñu ngi fii dakaar le Cube donc. waaw. ça euh, on n'a pas de relation mais amuñu amuñu problème amuñu dara. naa concerne Bouta du ma invité ak rubrique dama koy invité for real for real ak lu ak lu ak ak ak rubrique son ndax mus nañ def son wala. bien sûr bien sûr. bu gars yi réeree mbir on n'a pas on n'a pas de de différent man ak Akhlou Brick franchement musuñu musuñu am affaire boobu noonu booy xam nga genre mu ngi baax quoi. booy gars yi yi nekk mbuur yëpp que ça Blem Pro Wizi Kana One Tit euh, je sais pas Cash xam nga ku lim juum quoi tu vois mais Mbour yëpp ah Mbour koñ ba koñ. xam nga même ay dev Mbour Rap Connection Def Connection genre ñëpp quoi booy ñu ngi cool quoi for real et invité naa leen ñoom ñëpp si concept te ku ci nekk dinaa la woo téléphone da ah. ku ci nekk ah dinaa la woo personnellement. la jox sama gaañan la bu fekkee ne dafa am loo xamante ne dafa dafa dëng wala ñu blessé si ay nit ñu ngi jégalu. sama last word mooy que balaa dara di xew ah sama projet génn na. mu ngi si plateforme yëpp. Eclipse euh, sama tournée décembre laa koy entamé à partir du 20 à Mbour vingt 27 à Dakar donc na gars yi ñëw massivement invité naa ñëpp beneen bi ci des Marine Doy mooy gars yi euh, na ma kàmbi jël. kàmbi jël gros plan je sais pas ce qu'il va dire. xaw ma ban année la bi hip hop Galsen di njëkk a dem Grand Théâtre Simon ñëpp a dem supporter ko ren hip hop Galsen day njëkk a dem Arena dakaar Arena na gaay yëpp génn dem supporter Omzo dans la Dakar Arena donc loolu mooy sama la suur man personnellement damay dem jouer ak ñàkk jouer damay dem du Omzo hip hop Galsen comprend nga Omzo mu mënti demee ci àdduna yàgg na a dundal rab muy man di keneen ak keneen depuis buñ nekkee booyee dañ ko déglu def na ay yu bari ci ñun ne ko gars yi dem si quoi amul fii dama jël affaire de buzz la genre affaire yooyu nañ ko teg ci suuf on parle du rap galsen on parle du gars ce qu'il a fait pour la pour le pour le rap ko gars yi dem support. li ngay wax ni surprise la suñu si bëri parce que yéen ñaar su ma nee yéen ñaar sax yow laa personnellement on dirait que tu avais des problèmes personnels avec lui. de problème ak Omzo Dollar qu'on se que ça soit clair ah amuñu problème am problème musuñu gisee musuñu wax musuñu def dara est-ce qu'on amuñu problème mais juste que je suis pas là pour parler de problème je suis là pour parler de gars yi génn leen ngeen dem support. qu'est-ce qui a changé si diggante bi qu'est-ce qui a changé si diggante bi. gars génn leen ngeen dem support Rap Galsen Dakar Arena pour une première fois ñu def ko ni ko son Sonko def mu fees dell. ndax Omzo mérité na ko te te ji nañu lu mel noonu liggéey na fi lu mel noonu yaa ngi may nañ leen dem fay ko borom. donc tey loolu nga siy wax jaajëf c'était Vito Buzz Lab Mind Jeune Thiof